alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saahani liwatani bihi nafa ma anfani asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu del siwaat ci 2430 ci ndimbalul borom bi <clears throat> nekk ci saydul wujud Seydina Muhammad alayhi salaam moom mi nga xam ni weeram la nekk te eh, bu ñu jàngatee lu jiitu muy <coughs> gën a àdduna am na fu mu fekkoon ay mbokkam yu mel noo xam ni <coughs> boo ko jàngatee xool ko li nga xam ni yàlla dëgg dëgg dëgg moo moo am yërmandeem rek bëgg a sowe jaam ñi waaye jaam ñi moom jële nañu yoonu jëm sawara ba noppi rawatina nag mbokkam yooyu muy arab yi contexte boobu boo ko indee fii Sénégal tollu sunu mag ñii ni ñii ni tiitaroo te ñi ëpp ci ñi leen di tiitaroo ñëpp ñëpp ñëpp juddu ci yaru ci eh, wàcc nañu yoon woo bu yàgg yoon woo nga xam ne moo tax mag ñi di jàngale coow yi am fan yi bi weeru gàmm yu teroog léegi diggante màgg ak léegi rek rek rek nga ci xame ni nit ku foo moo gën a bari léegi mooy nit ku dëggu ndekete yu baree bari yoo xam ni nit ki mu ngi koy wane ci kaw waaye bokkul ak moom la muy def ci suuf te doon ko nëbb yàlla def mu feeñ yooyu nag te amatul ci sant wum amul kon taalibe gi ñuy wax mag ñi mag ñi mag ñi mag ñi du nu aar mën a aar mag ñu mukk fekk jikko yi ne ci sunu biir bàyyi wuñ ko ni ñuy wane ci kaw nu mel ko ni ci biir nin mel ci biir nu koy génn ci kaw waaye zilwat ay ni moom baaxul te moom moo am léegi al musabsab baaxul te moom moo moo bari léegi ay waaj ji mbokk yi nan dellu ginnaaw njàngalem mag ñii ñuy tiitaroo bunu bunu ko bunu ko bunu ko bunu ko jëfee yàlla xam na ni àdduna yépp yëpp yëpp yëpp dina mujj eh, di roy ci di roy ci mag ñi ci lu ñu yëg ak lu ñu yëgul te duñ ko sañ a bañ ndax dañuy daal di gis solution gis lu noppale loolu nag du lu ñuy tàmbali ren gis résultat bi ren waaye di ko tàmbali ren gis ak coppeeku ren waaw bu nit ñi tàmbalee roy rek njàngale mag ñi du ko jëfe rek daal di soppeeku ren ren ren te loolu nag bu ñu tàmbalee nag jur ay doom di leen ca yar ndax xale yi am na loo xam bu ñu ko fekkul duñ ko xam duñ ko xam. xale bi juddoo Touba ba màgg fa am 18 ans nee na soo ko génn euh, bi mu ñëwee Ndakaaru ni laay ci laa soo ko gisee nangam li ñuy wax église moom la ma ko doon dégg croix nangam ci laa gisee jigéen bi sol pantalon ci laa gisee nit ku yor cigarette di tox ci laa gisee nangam yoo xam ni waaw parce que fam bii ba nekk amu fa bañ mayee bukki soxna bukki rab yi fi nekk yépp yëpp dàq ko gaa yi lam ci bukki ne ko yow sa jabar ji moo ñàkk fayda rek yow nga gën a ñaaw ci fii ci àll bi yëpp bukki bàyyi ba ñëpp nag mu leen ndax di ngeen ma may benn baat bi muy wax ñun ko ah, ba may loolu boo la ñaanee lenn ka mu ni léegi boo fa kenn dem xam na ni jabar ji comme nopp na ko rek ñu ko gën a rafet ñëpp buñ fa diwul rek moom du nopp keneen parce que du gis keneen xamu ko bukki rek la xam waaw fi jamono toll nii ah, al islam ba muy ñëw fekkal ah, mu'taqadatul arab qabla al islam pas-pas yi arab yi yoroon doy waar trop trop waaye eh, saaba yi ni ko dann ni ko dann ba jëlee fi pas-pas yooyu gis nga ko mu'taqadaat diiniya muy ay diine yoo xam ne ay nit a ko sosal seen bopp xërëmi xuraysin yi ñu doon jaamu biddiw dëxëri yoona yi xanafiyatu yi ak yahuudi ak nasaraan yi xool yépp di ay camp yu mag yoo xam ni moom bi ko yàlla yónni fekk li yii euh, dëgër na ba màgg ba bi jaaw waaye nag euh, ña ko ña ko moom da leen a jaral joxe waxuma alal euh, waxuma waxuma loo man di am ci kaw suuf jaral na leen bàyyi ko te faatu ci ngëm yàlla moo tax ñu nag bu nax suñ bopp mbokk yi bu nax suñ bopp de waaw kon yitte ju rëy mooy dindi eh, li nga xam ni moom la mag ngi doon xeex ba am ci ndam ba samp diine ndax tubaab bi moo yoroon doole saayir ji ak ay pexe fu jaar daanaka mu mokk fu mu jaar mu mokk réew mi mu gënoon soxla réew yi bokk ci ba tax na daanaka fi la defoon capitalam fi la defoon capitalam ba yu baree bari bari tey jii ci Afrique bu koy wax Sénégal ku jëkk am ab député am nangam ak am nangam ku ñu jàpp ñaare buñ la yóbbu fii lañ lay jaarale porte boo xam ne sans retour ku fa dugg yow doo dellusiwaat jënd nit ñi yóbbu leen di leen jaay Sénégal yi xaru ci biir géej gi. kon euh, ngir yu bari yooyu ay pas-pas yu bari yooyu xalaat yu bari yooyu moom mu ñëw yàlla yónni ko mu doon kenn waaye laata mu faa jóge tey jii mu màbbal yooyu nga xam ni ñoom ñoo fa taxawoon loolu li ko ko may mooy yitte ju kawe mooy li ko yàlla joxoñ rek mu tàmbalee ca yam ca tàmbalee ca yam ca bu ñu leen dee netti leen Euh, euh, jaamu xiram ni mu tàmbalee foofu ci Makka euh, dangay gis ni léeg lu mel noonu day dal ab jullit gis nga ñuy def lu lii ak jaamu yàlla lu baax laay nga roy leen ca fexe ko def ca dëkk ba nga dëkk di réew ma nga nekk te fekk seen yëfi bopp la yoo xam ne jote wala dara ak jaamu yàlla tur wuñ ko mën a jox jote wala dara ak jaamu yàlla bu booba ñu ngi noonu loolu de ko koy def ku ñuy jéggal la borom mbooloo la waaye jotewuñu dara loolu nag moo ñëw ba jamono ji ni toll léegi nii rek waaw kon euh, firax yu bari yooyu day gën a tàqali diina yi rek ndax néegub yàlla bi ñu jëkk jëkk jëkk jëkk tabax muy inna awala baytin wudi'a linnaasi la lafi bi bakkata mubaarakan hudan lil aalamiina sooti imraan muy bir bu jaamukaay yàlla boobu tee lañ fa teg ay xiram lool lool waaye gis nga ko ba dëgg ñëwee ah, fa zaaqal baatil inna al baatila kaana zahuuqa jaaxal xaq xul jaaxal xaq wa zaaqal baatilu inna al baatila kaana zahuuqa ba Adama wàccee ci suuf ti jàpp ko muy wër soxnaam ba fañ fekkante ci wetu jabul raxma ca arafa muy foofe ca màkka adama ki torox lu gaag ba mu noppeet la ko suñu boroom diggal ci defar béréb boobu nga xam ne mooy béréb bu ñuy jaamoo yàlla bu ñuy jull di ca jull ak béréb bu ñuy tawaaf di ko wër lépp doon ak jaamu yàlla mu déggarle ak baytul maamour nekk ci kaw asamaan moom malayka yi ñoo fay def ñoom seeni jaamu yàlla ak yeneen mbindéef yàlla subhaanahu taala ba aadama ba mu taxawalee loolu ba ba muy faatu dénk doomam gii si saa mooy ki nga xam ne moom amul ab seex moom rekk la la awaa jur ci yeesalaat néeg boobu tabaxe ko ci xeer ak ban ci meloog woom ko digal <coughs> eh, ba loolu amee ba tuufaan mu ñëw ba ràppal ko imaam eh, ibrahima moom it gis nga ko ba mu ñëweet ak doomam ja ismaila mu ñëw dëkkal fa soxnaam muy haajara yàlla ma ngay daal di tàmbalee yeesalaat néeg bu barkeel boobu ba ismaila juddu foofu màgg ba nekk waxambaane ba moog waajuram ñu ànd yeesalaat barab boobu bu doon barab boo xam ni is yarfau ibrahimu alqawaacida min al bayt wa ismailu yooyu yëpp xam ni aay boobu am na ñuy xëy bu ñuy teg bu ñuy teg xeeru barab jàkk wala juma dañu koy jàng sancaale ngir néeg ba bañ a taxaw buñ ko tàmbalee ba keroog muy àgg ak yu mel noonu kon euh, teel lañ faa siiwe nit teel lañ faa teg ay xeeram lool wax nañ ni ka fa jëkk a teg xiram omar la tudd ibnu luxay yi ibnu aamir al xasaa yi ndax nee nañu moom moo romb ci béréb ñu fay teg ay xiram mu gis loola ñooñu di jaamu xiram mu laaj leen li ñuy def mooy lan ñu ne ko ñi arbaabul ay buur ay boroom lañu yoo xam ne euh, jël nañ leen wutal leen melokaan yu kawe yii ñu nuru ay mbindeef lu leen di dimbandikoo ci ñoom di ci xetli ko ci bu nu bëggee ndox bu nu bëggee saafarawu loolu daal ko yéem nag euh, mu daal di euh, sàkku ci ñoom jaamukatu xeram yooyu ñu jox ko benn xeram buñ tuddee hubal mu dox nag ñëw màkk daal di koy teg ca kaaba ga nee nañ kooku moo jëkk a teg aw xelam ak yeneen ñaari xelam yoo xam ne dañuy niroo mel ni comme jëkkër ak jabar daal di woo nit ñi nag ngir màggal nag xelam yii ak di ci sàkkoo àgg ci yàlla def tawasul gis ko loolu boo demee ci ay mu arri xool yu bari indi nañ ko ak yeneen tafsir ay yeneen riwaaya yoo xam ne ñoomit it euh, ñi ngi nettali euh, njaal nu euh, fii nga xam ni moom mooy màkk ba ki nga xëy nag moo ñëw seetal ko nag màbb xeeram yi ñëw fa dañ lu metti mooy Seydina Muhammad waaw ginnaaw buñ ko génnee mu dem rawale pas-pasam ba fondé état islamique ci Médinatul Munawara te Yasrib la tuddul ñu ñu ànd nag ñëw ak saxaaba yu bari dégagé xiram ji ñii tuub tuub ñii mallu mallu ba tey jii mu nekk cent pour cent réewum jullit mooy makkatal mu karam mbokk yi kon lu ne jaar na fi lu ne jaar na fi nun te ñooñu ba ñuy jaamu xiram yi boo leen waxee ñu ne maa naabuduhum illa li yuqarribuuna ila allah iz zulfa nun xam na ni ñii ah, ay ay ay bant lañu waaye dañ leen di jaamu ngir ñu jigeel nu yàlla loolu rekk la ñoom xol woowu lay woyof lay woyof kii ni la nekk nit comme yow di indi wax joo xam ni mosoo koo dégg xamoo ko munoo koo indi kenn mënu koo indi muy alxuraan mun la yàlla nee na ca nangam wax wax wax ju bees saq maana waaye nag ñi yàlla lënkaañ seen xol ba ngëm yàlla munu caa dugg ñooñu xam naa dañ dul mën a dañ dul am léegi connect connexion ba mën a connecté ci lii nga xam ne moom mooy ngëm yàlla waaw mbokk yi bu ñëwee ci suñu réew mii yàlla indi nu lislaam joo xam ni yi ci bari mu ngi jaaree ci majorité bi yëpp yëpp mi ngi jaaree ci wàllu turux yi donte lislaamu tarixa noonu duñ ko faral di wax euh, doonte lislaamu Sénégal duñ ko faral di wax waaye ndax li nu gëm mooy yàlla moom moo yaatal lislaam ba mu agsi ci noonu te fokk am ñum ko jaarale lislaam teel fee dugg waaye tarixa teel fee dugg lool liggéey boobu nag waay waay waay waay waay waay loo bañ bañ bañ bañ bañ lëg nungul ko rek ay ak mën a dawam loo ko bañ bañ bañ nangul ko ko rek waaye yow mi nga xam ni yaa bëgg ñu nangul ko ko yow li ngay wax daa war a nekk ci yow daa war ci yow kon mbokk mi doon laaj ten tàmbaliwoon ko ci nu ñu war a gàmmoo nu ñu war a gàmmoo nee naa danga koy dundi ci at mi yëpp yëpp loolu mooy yombal bu gàmmu ñëwee rek yow doo bokk ci ñi nga xam ni moom euh, dañuy euh, euh, dañuy ras jéem waaye gàmmuwuñu ndax ba gàmmu gi jàllee yokk nañ ay bàkkaar loolu bu ñu yokkoy tuyaabaat yokk nañ ay bàkkaar te gàmmu gaa tax bala ñu amaat yi bàkkaar yooyu gàmmu ga ñëwaat loolu musiba bala mbokk loolu daanaka tëddal nelaw amoo amoo bàkkaar amoo tuyaabaat ko gën waaye dina ci li war a ne xam ko bu baax ba nopp lu jot mu tëddi nelaw ngir bëgg a jógaat ngir mën a jaamu yàlla kooku dañ koy dugal ci nawmul aalimi afdalu min ibadati jaahil nelaw bu doon xam-xam bii dallu di nelaw moo gën jaamu yàlla jaahil bi nga xam ni mi ngi kër këri fa benn nit yàlla nee na euh, dafa am euh, ñett ñoo xam ni Euh, dañu bàyyi ba guddi ñu ñëw ci këram ni ko dañoo guddee bëggal fuñ fanaan mu leen ah yéen bii de mën ngeen cee fanaan ab yéen ñi ko xamul bu njëkk suñu kër yi maam yi da doon am fan yaroo ah, ab kaas lay doon ñu teg ko ci ci digg kër gi fa la ñuy yendu day am ker mën naa am sax ak tóoj wala bu dee pénc ma lay am ak tóoj mu leen néeg bee mën ngeen faa dem gaa yi dem fa yéen la wala néeg bu amul buntu borom kër gi moom euh, bu toogee ci guddi gi da leen di séen mu gis ñetti ni bii guddi jotee mu gis kenn ki di nelaw di xaran rek nelaw di xaran mu gis kenn ki léegi di julli waaye kenn ki moom fanaanee reetaan rek léeg-léeg mu ree ba daanu ci suuf bi ñu xëyee di ko nuyu di ko tàggu nag mu ne ah man day démb moom seen guddi gi daal moom am naa ci ak jaaxle am lu ndax mën naa leen laaj ñu ne ko ah, laaj mu ni man dama gis kii moom léegi da doon julli rek kii moom dina la di xaran rek waaye yow mi moom da nga doon reetaan rek mu ni ko waaw li ma doon reetaan day iblis laa doon reede iblis daal moom moo doon jéem a ñëw di mm, mm, bëgga bëgga Euh, bëgg euh, fexe ba ki nga xam ni euh, moom mi ngi mi ngi nelaw moo doon xaran xaran yi nag bu iblis ñëwee ba jub ba jubleen leen rek xaran yi kii nelaw nga xam ni iblis da koo bëgg a yee xaran yi moo koy dàq léegi nag loolu laay ree iblis bu ñëwee ba jàpp ni rek mën naa mën naa man na yee kii nelaw rek xare nii rek tax mu daal di daw ndax iblis bu ñëwoon eh, mun ko waaw loolu loolu mooy lan mun ko ki nga xam ne moom mi ngi doon xaran iblis bëggul mu jóg ndax lan waa ji doon julli julli ga amul solo te waa ji bu yeewoo rek dina defar julli gi waa ji iblis na dafa bëggoon gën koo jege ngir bëgg ko ëpp mu gën a nelaw waaye bu jub see rek waa rek xare ni waa rek nekk gu nekk waaye yàlla moom mooy tiitloo iblis mu daw mbokk yi dafa mel waxtu jot na te yëguma ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarim silmilan ala sirali bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوتني به نفى ما أنفني وهذا لي